dañuy dañuy wër comme niñ ko commencé di def depuis élection yi commencé ba léegi tey ak démb ñu nekk ci étape bu Kaolack ak département bu Nioro jiitu na ci suñ programme mooy fexe ba baykat bu ci nekk mu am këyit ci ay toolam ak ci këram ñaareel bi mooy ñun nitu daara lañu bëgg nañu daara ji jóge ci ministère bi mu nekk di culture dem ci éducation ñetteel bi mooy sàccum jur bi ñëpp xam nañu ne jafe-jafe la bu fi nekk mu am projet waaye projet de loi bu fi am waaye dañ ko dugal ci trois yi waaye borom dëkk yi tamit gis nañu ne dañu sonn trop tey boo demee ci ville yi tey fu mel ni fii ci Kaolack wala Dakar foo mën a dem chef de quartier dañ leen respecte ba boo soxlawee yenn kayit yi non seulement pour ñi dëkk ci dëkk bi waaye ak chef de village yi ñoom duñu ko am ñun koy def ñu gis na daal ñàkk yemale boobu am na ci suñu diggante trop si ñëpp umpale wuñ ne fii ci réew mi ñu nekk daay yi dafi bari trop di sonal ñu baree baree baree bari baykat yi amuñu ndox bu ñu naan bay am lu ñu fayee daay yoon yi boot na li ñu gis yoon wax dëgg yàlla bu ne fii nit a fii jaar sa yaram dafay daw ñu gis ay soxna yu am doom ci taati garab am ay soxna yuy am doom ci kaw sareet waaye ñu am ñoo xam ne mënuñu am ndox ndox bi comme deret ñenn ñi courant bi ñëw ba tiim seen dëkk mënul wàcc ñu des mu romb leen jafe-jafe yu yëpp bu ñu ko amee dañuy wax ne responsabilité député yi la kan mooy député ak ni ñu koy falee loolu nag moo tax union naatal kaw gi jël responsabilité am àndul ak kenn waaye mu dem moom kenn ci législatif yi ndax li tax mooy yàgg nañu am ay député waaye député yooyu kuy dem ku ne dafay dem ci parti wu jàmbur wala ci coalition wu jàmbur looloo tax ñi leen di tënk ba duñ amal njëriñ ca gox ya ñu jógee moo tax union naatal kaw gi kàddu kaw gi di wax képp koo xam ne yaa ngi ci kaw gi ngeen xam parti bi gën ci yéen. ñu ñëwaat ci wax nañ la suñu xel suñu xel trop am nañu yaakaar moo tax mu woon wax ak yéen ngeen baal parce que dañ bëggoon nekk suuf pour ab surprise na ko dogal kon suñu xel dalna na ci côté boobu donc suñu message alhamdulilah moo ngi jàll ndax ñun dañ dëkk ci kaw gi. ni ma koy waxee léegi ay député yoo xam ne incha allahu dañuy ñëw lekk ci cere ji ak mbuum mi yenu gopp bi dugg ci waar bi dem assemblée nationale ñun dañu xam jafe-jafe kaw gu bind programme bu méngoo ak kaw gi waa kaw gi yëpp jommi ci ne lii mosul am ñoom ñëpp dañ ko def seen yëfu bopp loolu moom maa ngi ciy dalal seen xel xanaa kay liy catli mooy ñàkk moyen comme ñeneen ñi waaye bu fekkoon ne yàlla mën nañoo may ñu wër fépp foog ne dëkku kaw la ah kon gëm naa ne amul parti maanaam ñun ñuy jël majorité assemblée nationale loolu moom dutu waaw mais loolu laa la wax dañ pare ñoo xam ne da ngay gis sax début dañ doon dutee mais bu ñëwee ba wax ak ñoom ba fii tey ci biir marché bi nit ñi ñoo mujj di ñu woo te fuñ dem noonu lay demee da ngay expliquer kenn moo lay mujjee woo di la laaj ñoom ñëpp ay xër sawar ci mbir mi danga ngay gis koo xam ne nekk sax ci dëkki kaw gi mais suñu programme da ko yitteel ba nga xam ne parce que xam na ne li tax tey fii saturé borom sareet yi bëri cag-cag yi bëri commerçant ñëpp nekk commerçant ñëpp nekk tailleur parce que kaw ga moo doxut ñuy jëggaani dañuy daw force ñun ñëw Kaolack wala ñëw dakaar wala ñëw Touba du pexe parce que mënoo jàkkaarleeg sa rakk sa yaay sa waajur ñu ay nekk ci ay jafe-jafe mënoo ko régler il fallait que nga daw dem loolu nag moom lañ dem ba xeeb yematuñ sax biir dakaar ñu bëgg a dem Barça far yam Barsàq donc loolu yëpp li koy causé mooy problème bi am ci dëkki kaw yi te nag dara jeexu ci dëkki kaw ñun war nañ leen ko am nañu suuf am nañu naaj yàlla jàng ñu may ndox am nañu jom car macha allah lan moo des mooy politique bu mel ni bii union naatal kaw gi di def nga xam ne dina am njeexital bu xóot ci dëkki yi te loolu amee yéen ñii ñëpp di ngeen xam ne dëkk bi commencé na neex wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi oo ñoo ngi oo képp koo xam ne gëm nga ne réew mi dafa war a jógee ci lii mu nekk moo xam nga dëkk ci kaw gi wala nga dëkk ci feneen na ngeen xam ne carte bi gën mooy bii di union naatal kaw gi donc ñu ngi sàkku yéen ñëpp ngeen watal union naatal kaw gi di set incha allahu yàlla may ñu ndam